mujj am euh, incident la boo xam ne dafa bokk ci wàllu aéronautique mhm. euh, souvent euh, c'est très rare mais très souvent di nga dégg ay problème avion yu am problème Sénégal diñ ko fi gis bariwul mhm. donc bu amee tey heureusement que jotut jóg mhm. am na ay quelques blessés le ministre des transports dem na fa taxawu leen ànd ak équipe yi yëpp ñii ñu ngi ci hôpital yi ñii ñu ngi toog di noppalu également euh, ministre bi dégg nañ ko demandé na à ce que euh, une enquête soit ouverte mm-hmm. donc par le bureau euh, d'analyse ñu xaar mm-hmm. ba xam lan moo ko waral benn compagnie la sénégalaise bu ñu naan Transair Transair yàgg na di dem ci sous-région bi ak le sud du pays man mm-hmm. jël naa ko dem dem ci ci Ziguinchor Euh, mosuñ ko gis si moom mais yu mel nii dina tax ñu gën a bàyyi xel. justement dina tax ñu gën a bàyyi xel.